risque yi mooy éventuellement bu amee problème ndox mi day wàcce directement ci biir salon bi boo amoon faux plafond daf ko yàq mais bu wàccee ci c'est pourquoi il est recommandé que soo ko mënee dugal ci biir plancher bi fekk kenn du ko gis parce que normalement boo ko def da nga ko war a nëbb dafa am da ko war a nëbb donc ça doit mais nëbb boo xam ne mën nañ ci accéder parce que bés bu amee problème ñu mun a ubbi seet fu problème bi jóge mhm. donc il faut mu doon quelque chose qui est accessible mu doon quelque chose boo xam ne aussi ça se trouve quelque part caché dans des des chemins assez particuliers. dinañu wax ci si kanam dañuy wéyandi ak Amadou Ly Mbaye Euh, waaw euh, ci loolu sax la ñuy ñëwaat ñu ngi ko doon wax ci wàllu contrôle bi ak euh, yi nga xamante ni moo ci war tey lan nga jàpp ne mooy solution bi ndax dafa war a am ay pénalités yoo xamante ni moom la ñuy teg ñi nga xamante ni dañ leen di jox dañuy dem ñu viser leen seen seen plan ñu ñëw def lu leen neex ndax tey dañ leen war a daan ba ñi nga xamante ni ñoo bëgg tabax suba bu ñu leen viser les plans dañ koy respecté wala déet. je je lii daan je veux bien mais daan du faj dara xam nga lan mooy faj sensibiliser nit ñi. ba ñu am seen conscience personnelle que lii kenn war koo def bu booba daan doo ci am mais peut-être préalable il faudra ku ñu wax nit ñi ne attention moo am ay nit ñu ñëw di gestu qu'on crée des comités dans les quartiers qu'on sensibilise les jeunes qu'ils viennent voir mais nous avons aussi ñun am nañu ay tradition yoo xam ne ku ñëw booy tawa da su ma ko laajee dara daf may wax ne moom moom moom mu lu ko neex mu def non il faut qu'on puisse accéder aux personnes leur attention seen kër gi est-ce que jaar ngeen fii est-ce que jaar bu njëkk ba service d'hygiène daf doon wër di seetlu nit ñi di def mais léegi avec les moyens qui manquent on a plus la amatuñu possibilité di def loolu waaye nag li ci gën mooy professionnel yi mu di ingénieur mais est-ce que accessible nañu aussi mhm. les professionnels yooyu ngay wax ndax souvent aussi nit ñi dinañ bëgg a jóg dem wuti li nga xamante ni mooy un architecte seen kër waaye euh, ñoom ci seen bopp parfois doo xam ko leen di koppar yi nga xamante ni moom nga leen war a fay euh, dañuy jàpp ne dafa bari ba tax ñu mën a dem vers yoon parce que mythe bi jëmale ci architecte yi ba tey mu ngi fi koo ne mm. architecte dañ naan que c'est pour les boss ñi nga xamante ne dañoo uppee ñoo ko moom alors mm. que tel ne pas le cas non non c'est c'est c'est peut-être ça c'est de l'histoire loolu passé na fi mu nekk nii non seulement architecte yi bare nañ mais méthode yi ñuy defaree plan léegi bare na yàlla a l'AutoCAD mun nga toog fii nga ñëw fekk ma sama kër ma jël sama ma dessiné la sa plan nga xool di seet di ma non wàññil néeg bi yokkal fii yokkal fii ba ne jekk na mu pare mhm. mais l'étape la plus importante c'est calé mooy ni koy defaree étape nit ñi de pour ñoom boo amee plan bi rek jeex na or l'étape la plus importante mooy bu ngeen xasee ba d'accord ci lii la ñuy def ñu dem léegi ci nu ñu koy defaree pour mu gën a dëgg pour ndox mi baax pour assainissement baax pour électricité ba baax pour mu am durée parce que normalement il y a dix ans de garantie décennale dix ans wa kenn waratul intervenir aussi bien ndox aussi bien électricité que dëgërawaay bâtiment bi pendant dix ans et ça c'est garanti man maa ngi ci société je ne fais pas de publicité maa ngi ci benn société immobilière on est obligé c'est c'est les normes on est obligé de respecter ça boo ñëwee dañ la woon plan yoo xam dañ ko viser te tous les mercredis ou plutôt dafa am benn bureau de contrôle boo xam ne day ñëw saytu lu ñuy def li tout mais est ce que mais bureau de contrôle yooyu sax est que seen lim tey jii doy na euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoo war a dem di saytu bâtiment yi ndax seen lim doy na ak ndax moyens yi nga xamante ni moom la war a intervenir mu nga fa. non doy na mais mais bureau de contrôle xam nga bureau de contrôle ki koy actionné mooy borom yëf yi. Mhm. bureau de contrôle c' est payé par le maître d' ouvrage. parce que moom moo bëgg a garantir këram. bu yow léegi boo doon defar sa kër ñëw gis benn bureau de contrôle man de dinaa et puis c' est rek. mais deñ na léegi da nga ñëw avec cent mille francs nga ne dama leen di fay mais naturellement les les les visites vont être espacées. dina la wax ne peut-être bu gaa yi tooree fondation dinaa ñëw seet. bu ñu demee ba tollu daal ma ñëw seet bu ñu demee ba di raax. c'est pas comme ñun ñu ngi xam ne ñun nous nos prestation sont en fonction du chiffre d'affaires. on dit c'est tant donc li nga may fay. pourcentage tout pourcentage tous les mardis il est là il regarde tous les postes. à tous les niveaux et même matériaux yi indépendamment de la constitution les matériaux yi nga xam ne dañuy jëm ci constitution yi yooyu sax dañ leen di test tuyaux yi dañ leen di yóbbu laboratoire seet est-ce que tuyaux yi ngeen fa teg baax na ndox mi ngeen di utiliser dañ koy yóbbu laboratoire xeer yi ngeen di utiliser dañ koy seet ciment bi ngeen di utiliser dañ koy yóbbu laboratoire ñu dajale ko encore ñu ne comme yéen li ngeen di utiliser mooy da ngeen di dajale yëpp dajale leen ko ngeen yóbbu ko laboratoire mu seet a téye loolu yëpp ce qu'on appelle y a des laboratoires ici balaa ngeen tabax sol bi suuf si dañuy seen xam suuf si mun na téye tibbale ñu laboratoire ñu ko donc il y de chose qui se font autour du bâtiment bon malheureusement bon euh, ñi nga xam ne xamuñu ko duñ ci jaar ñi nga xam ne xam nañ ko léeg dañ ci jaar mais yenn yi ñu tëb ko parce que peut-être que duñu ki mais suñu sensible gis nga bés bu ne nga dégg benn balcon daanu bés bu ne nga dégg benn kër daanu loolu war na yee nit ñi ci xam ne ku nekk da nga am sa métier yàqu ko yor man du ma dem mukk man la kaay ma wat la munuma ko bi pour man munuma ko donc man tamit li ma mun li ay maandul nga jox ma li mu mun nii ñu jox keneen lu mu mun ñu jox keneen lu mu bu boobaa du ñu am problème. parce que yenn saa yi dañuy faral di dégg ay batiment yi nga xamante ne dañoo daanu fekk dañ lay. moo doon ball étape yi nga wax ni moom la ñu war a suivre processus bi nan la war a demee ki nga xamante ne mooy spécialisé en hydraulique ki war a xool tuyaux yi est-ce que am nañu culture boobu noonu ak yéen yan communication ngeen di def par rapport rek pour tuyaux yi nit ñi gën a xam seen importance gën leen jox cër bi war. mais si si si c'est c'est la bonne question moo tax ma ne xam nga dans les pays man sama troisième cycle maa ngi ko defee Montréal dans les pays euh, tout loi mooy gérer problème bi non professionnels yi ñooy daje régler problème bi sensibiliser nit ñi ba nit ñi jàpp parce que man ni ma jàpp mooy nit bu xelam jàppul dara même boo jëlee yar ci ginnaaw mi bu ko defee boo demee bu yar bi dee mu delluwaat. nañu yéen nit ñi ci norme yi normes yi nag ñun tamit dañu ñun professionnels dañuy war di gëstu tamit parce que toog ci norme tubaab yi par exemple léegi ñu ngi considéré ne pour nga jaarale Fétuo on considère un Sénégalais consomme ci laboratoire à peu près cinq litres par bon ça c'est les tubaab peut-être que man suñu kër peut-être benn litre la ñuy consommer bon mais avec le développement l'urbanisation maintenant c'est vrai les gens consomment beaucoup d'eau mais les normes européennes aussi ne sont pas les normes africaines il faudra donc ñun ñu mun a réadapter normes yi ak suñu vécu fii Par exemple, les produits alternatifs. Moi, j'ai fait mon troisième cycle sur l'utilisation de la latérite comme agrégat de béton boo demee Fuuta mënuloo fa am xeer bu te xeer bu ñuul bi moo gën a baax ci tabax mais nga yenn fi xeer bu ñuul di ko yóbbu mooy basalte bi basalte bi donc latérite moo fa am moo am Tamba moo am zone yu gën a donc il faut que ingénieurs yi non seulement ci tali bi déjà ñu commence di utiliser latérite bi ci biir tali yi ba mu baax mais ci tabax aussi ñu seet ni ñuy utiliser latérite ba mu réduire coût de construction dans kii ban bi na ingénieurs yi seet nu ñuy construire avec ban pour mu bañ a gën a cherati avec le problème de l'habitat que nous avons au Sénégal nous avons énormément de défis utilisation de matériaux ko fexe ba suñu réew dafa tàng fexe bi utiliser ay matériaux yoo xam ne dinañ permettre benn hygrométrie ci biir boo nekkee ci biir mu sedd tàngaay bi ba ñu dugg si biir mu am échange de de de température entre énormément de choses sur lesquelles ingénieurs yi techniciens yi war nañ ci xeex fekk du ñu jéggaane réewu tubaab yi à chaque fois produit bu génn foofu ñu ne nañ ko indi fii c'est bon d'accord mais il faut que ñun en interne nous commençons à réfléchir sur comment renverser la situation. lii ci tàngaay boobu sax da gis ay tuyaux yoo xamante ne tàngaay bu ñëwee. dafay dégager mhm. odeur di euh, xeeñ lan moo koy waral. mais absolument gis nga xam nga au malheureusement dans nos pays il y a il y a exactement de la chaleur. et c'est des, des, produits euh, polyéthylènes, c'est du, du, PVC. Mm -hmm. Donc quand il y a une température forte, sa solution est de sentir mhm. Bon, c'est pourquoi je dis que les tuyaux-là doivent être protégés. Mhm. Il ne doit pas être visible. Quelle est la solution La euh, solution, c'est de nous protéger. Mhm. D'abord, il y a un chemin pour nous Il faut respecter ce nous avons fait. Si nous avons nous protéger. Mais il y a un obstacle, il y a un obstacle, il y a un ëllëg aussi boo amee problème plan yi ñu génneewaat ko ne fii lu tuyau jaaroon donc boo amee problème nañ jaaraat fii c'est la même chose am nga électricité ak plomberie presque benn presque ñoom schéma yi principe yi euh, réseau yi presque benn mhm. donc il y a lieu d'avoir un process boo xam ne ñëpp dañ ci tënku dañ ci tënku da daanaka boo génnee Dakar dëkk yu bari amul li nga xamante ni mooy réseau d'assainissement mm. euh, ci dëkk yi nga lan nga leen di conseiller ci wàllu euh, euh, plan plomberie bi ndax bu ñu amee force ba pare euh, c'est obligatoire dañu war a am des puits yoo xamante ni dinañu dimbali li nga xamante ni mooy fosse bi ba dinañ mën a toog lu yàgg loo xamante ni duñ am jafe-jafe ci wàllu assainissement. oui ok parce que effectivement dans les zones rurales yi nga xam ne ñoom il faut ñu am fosse bon ça dépend am na capacité fosse bi nu muy tollu c'est pas la ngay am ce puits perdu. mais am na capacité bu muy am foog nga am benn puits puits bi lan mooy jël ñëw mooy fosse bi dañ koy compartimenté dañ ciy def benn compartement yu bëri bu njëkk bi foofu la produit solide yi di ñëw mu taasew ndox mi di jóg ci kaw nga def benn trou ci benn beneen compartiment mu wàccaat encore wàccee élément solide yi nga beneen compartiment bi nga soog a jël ndox mi ci jóg nga yóbbu ko ci puisard bi yeneen ndox yi nga xam ne yu baax la dañu yàqu rek ñoom ñëpp yóbbu leen ci puisard bi mais attention euh, puisard ak fosse septique yëpp yaa ngi koy def fii nga xam ne ndox mi mun suuf si mun na naan ndox mi mais bu ko munul naan loolu da ngay utiliser ay produits spéciaux yoo xam ne dañ koy jaay fii ay puits yo ay fosse yoo xam ne dañ koy jaay fii fosse étanche mhm. yoo xam ne yooyu ngay utiliser ça on les vend ici dans je ne fais pas la publicité pour les <laughs> sociétés qui le vendent mais dinañ ko utiliser tamit <coughs> modèle kon mu ne noonu euh, yaa ko dégg xanaa bala tàggatoo rek ma bàyyi monsieur Sarr mu tàggatoo que vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que seen émission bi euh, car rapide yi ak dem dikk yi yëpp yéen leen di gunge bu ñu yeewoo suba di dem ci seen liggéey mais famille yi nga xam ne dañu fanaan am jafe-jafe ñu la vie plein de problèmes ñi nga xam les couples qui ont des difficultés vous les avec la bonne avec la joie avec la gaieté ba ñu fàtte li ñu nekkee woon donc maa ngi leen di sàgg di leen gërëm te di ñaanal seen émission bi mu yàgg fi yàgg fi yàgg yee nit ñi yàgg oriente nit ñi ci lu leen di njëriñ parce que c'est ça aussi le Sénégal chacun de nous a un rôle à faire moi je suis un professionnel dans mon métier je vous aussi dans votre métier au service de la population donc je voudrais vous remercier vous féliciter vous encourager merci beaucoup euh, di muy wax bu am solo waaye ñu wax ni rek li mu doon waxtaanee kon am na solo di ko fàttali nit ñi rek di wax ni kër euh, boo koy tabax euh, li nga xamante ni mooy wàllu assainissement bi am na ci solo bu baax a baax comme ni mu ko waxee rek duñ ci jóg ndax xam naa euh, altine bi di ñëw dinañ wax ci wàllu plan électricité bi ndax ensemble la ah, mënoo wax li nga xamante ni mooy plomberie te waxoo li nga xamante ni mooy assainissement di ko fàttali nit ñi di wax ni que ni loolu am na solo ci kër di ñaax tam ñi nga xamante ni comme ni mu ko waxee sànq am na fi ay loi yoo xamante xamante ni mu ngi fi waaye waaye nañ koy appliquer nañ koy faire bu jaaree yoon rek je pense que jafe-jafe yi même bu dee am sax dina nekk loo xamante ni day yomb waaye bu neexee lu neex waay def te ñi nga xamante ni ñoo war a taxaw ne déet kenn gisu leen euh, je pense que jafe-jafe du fi jóg te loolu lépp moo tax a jóg li nga xamante ni mooy émission petit déj kon ma jox gars yi euh, altine bii di ñëw di nga indi tube orange. waaw bu altine bii di ñëw daal. incha allah duñ ko bàyyi. fa la ñu dugal fii nii waaw jeex na. <laughs> incha allah di la jaajëfal li moo nekkoon seen rubrique immobilier ànd ci ak Amadou Ly Mbaye léegi léegi dañu dem di rubrique décoration ci seen biir émission Petit Déj. ñëw nañ c'est <laughs> dañuy ànd ak euh, Issa mu nekk suñu gan Issa ñu ngi lay nuyu di dalal ah, maa ngi leen di fay naka suba si Issa xanaa jëloo sa café ah, nag yow wala jottali ko croissant yi. non non non merci c'est bon nekk naa frère. <laughs> nekk nga ba pare. mais a euh, honneur ne se refuse jamais ah surtout suba teel bi tamit. nekk na quoi. ah café a ngi ñëw est nekkoo xawoo laal tuuti séeréer noonu di bañ sa buur simmi la. moo tax nga ne suuf na man ah. kon sama suñu mbokk nga ñun ñëpp Sénégal amul lébu amul séeréer ah. amul. couleur ñëpp bokk ah, ndey ak baay euh, tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante moo waaye yatt ci xeer. yatt xeer. war ànd ak yow balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañuy seetaan élément dellu si waat ci plateau bi. Euh, Issa Niang di fàttali ñu di seetaan lii nii yow yaa ko yatt. waaw maa ko liggéey ak samay ak ñi may liggéey ndoom moom. yattum euh, xeer bi est-ce que yomb na. liggéey bi moom yombul moom. liggéey bi dafa metti quoi parce que am na ay risque d'abord donc euh, te ñu Martha Brin quoi moom kese ngeen di liggéey liggéey donc euh, moo tax mënul yomb ko mais comme te ci aspect décoration lañu nekk te mhm. ci biir kër yow modèle yi ngay yett gis nañ fi gaynde gis nañ fi ay picc ak yu ndaw a ndaw euh, xeer bi ngay yett fan la mën a dem ci kër bu pour ngay décorer ak lan lañ koy décorer ci biir kër non loolu moom moo ngi dépendre ci client bi quoi donc kenn ku nekk ak vision xam donc ñun dañuy inspiré wu di liggéey rek. mais mais mais mais Issa Issa doo yett sa gaynde nga dugal ko ci biir saal bi yow mi ko yett yow xam nga œuvre boo gis. ki ko defar boppam. kenn waru ko ko gën a mën a expliquer ndax la mu koy bi mu koy defar la mu sentir ba defar ko. objet bi mu defar war a refléter léegi nag dafa subjectif ku nekk mën nga ko gis xalaat ci mën nga def sa gaynde man ma gis ni segg la. est-ce que comprendre nga fi may waxee. d'accord mais euh, yow mi defar say œuvre. Mhm. gaynde bi bi nga ko doon defar lan fan nga jublu dugal ko fa ak yeneen yi xeet yu ndaw yi ñu gis yu rafet yooyu noonu bu ci nekk fan nga xalaat ni fa la war a dem. bon affaire yi moom duñu si liggéey ay ay gaynde ay kii duñu si liggéey lu ñu neex. Mhm. ay pot de xam nga d'abord yéen li ngeen jotee filmé loolu rek la quoi. Mhm. mais li ñu si gën a li ñu si def ay cascade ay jet d'eau siy liggéey table en pierre lépp dañu koy jox. table en lépp loo gis rek am na foo xam ne war na fa man a dugg quoi mais ñun fu ñuy liggéey lii diñ ko en plein air nii rek pour yenn clients yi leen quoi mhm. mais ñoom bu ñu ñëwee diñ leen woon suñu album ak nga xam ne mu ñun diñ koy liggéeyee quoi léegi si biir loolu nag ñoom dañuy commandé yeneen liggéey mhm. donc pratiquement man man personnellement su may liggéey nii du ma liggéey ay gaynde ay lion ay xam nga dama dépassé niveau boobu quoi mhm. damay def ay revêtement mural xam nga ay jet mur d'eau chute d'eau yëpp dañ koy liggéey tu vois donc lii nii ay par bu nga ko amee commande dina ñëw liggéey nii teg moo tax la plupart da ngeen ko gis noonu buñ ko jaayee après reproduire beneen donc comme par exemple fin bi mhm. ñoo ngi liggéey douze dauphin kooku dafa nekk œuvre boo xam ne benn bloc de pierre la mhm. noonu ñu liggéey douze dauphins loolu signification mooy bon danse danse des dauphins loolu ñu ko tuddee quoi léegi nit génneeg si benn. bloc ni nga koy waxee ci wolof. bon moom man dégg xaw ni nga koy waxee si wolof. <laughs> waaw kon nekk ci géej. dafa. bon dauphin dauphin donc dauphin laa ko xamee quoi mhm. bon ñu liggéey douze dauphins mhm. si benn bloc de pierre bon ku ko gis da ngay yaakaar ne ciment la wala di nga ko dañ ko modelé di ko taf ni alors que du loolu quoi mhm. mais di ko liggéey pour wane euh, état bi ni mën nañ def ay décoration yoo xam ne au niveau de de des ronds-points lenn lu nekk mun nañ ko fa liggéey quoi donc dafa bëri ay format mais li sénégalais yi rek ñu leen mën a wan quoi mais li si biir xam nga mooy loolu daal. mais lii ban xeer la ban xeer ngeen di defal nii. non kii basalte la kii basalte la. mooy xeer bu ñuy tabaxee euh, bu ñu doon wax sànq bi. basalte bi waaw mooy bi xam nga basalte bi dafa am euh, deux formats am na basalte de mer bi. Mhm. ak basalte volcanique bi. donc mais Bazal de manière bi ñun la plupart moom la ñuy liggéey parce que moo dàq. dafa dëgër quoi am ay crist ay ay kii euh, cristaux yoo xam ne dafay scintiller non buñ ko bi ngeen ko yettee ba pare di nga gis ay tàq-tàq yenn saay. mooy loolu moo ngi dépendre si ñuy liggéey xam nañ xeer bi quoi mooy li ma la wax basalte volcanique bi am na ay façon donc euh, tout récemment maa ngi. si côté ba basalte bi si wàllu kii bi euh, tabax bi effectivement donc def si am na basalte boo xam si dafa dëgër am na boo xam ne dëgërul donc loolu nit ñi nekk si xeer ñoo koy xam quoi donc euh, noonu la demee te amine bi jafewul ni ngeen koy amee jafewul non si amine bi jafe na parce que bu ñu bëggee liggéey benn pierre boo xam ne mastodon la fu mu toll nii da ngay fay camion mu andi ko de nga fay léegi mu andi ko mais ñun dañuy liggéey difficilement kon doo doo doo jënd xeer bi da nga jël non xeer bi da ngay dem chantier nga jënd ko parce que chef de chantier duñ la ko jox noonu gratuitement. ay ñaata lay jar. moo loolu moom c'est un <laughs> la quoi. li may la koy laajteel. non non loolu la ok. mais daal am na jafe-jafe quand même. am na ay jafe-jafe mais. yëpp am jafe mhm. mais yow yaay xool ni ngay surmonter jafe-jafe yi pour génn si quoi donc loolu noonu la demee. sànq maa ngi la dégg yaa ngi naan euh, bi ñu la waxu gaynde nga ne da nga stade boobu noonu. liggéey bi dafa am euh, maanaam sooy doo sooy doogu ñëw dafa am voilà dafa am procédure voilà te également dafa am beneen question bu ma leen laaj tout à l'heure maa ngi gis euh, yaa ngi yaa ngi yett mais sans protection nga ah, man ci wàllu wér-gu-yaram tamit dama ciy bëgg di di gëstu mhm. est-ce que yéen a ngi xalaat euh, yéen a ngi xalaat également ci conséquence yi mu mun a jur également ci côté wér-gu-yaram bon man man personnellement ça fait presque 17 ans may liggéey quoi mais boo xam ne benn tubaab moo fekk ma toog mu expliqué ma effet yi muy def mu ne ma del takk del en même temps nga xay tooyal donc depuis loo mosuma liggéey te du ma takk mouchoir ki nga gis muy liggéey sama collègue de peut-être di nga ko doon filmer mu doon won ni muy joobee noonu mais dafa def erreur foofu mais ma liggéey te du ma takk mouchoir bu nunu am sinon bu ma paree damay fatt du ma ko def donc loolu la. Mhm. léegi bu ñu ñëwaatee ci aspect décoration bi. Mhm. Euh, wax nga fi ay cascade chute d'eau yoo xamante ne danga koy def. Mhm. ci xeer euh, bi est-ce que mën nga ci xuus nga wax nu euh, lan nga ciy def ay yan modèle bon modèle yi bëri na xam na li may wax quoi parce dugg naa seen kër liggéey fa maintes reprises. mais ñi xamul Issa Niang. non ñoo ñi xamul xamuñu sculpture bi ñooñu moo tax tey jii ñu indi leen. non ñooñu bu leen neexee mën nañ dugg euh, Google ñu dem Issa Niang. Ah, ah, ah, mais mais Issa Issa Issa est ce que mën nañu xam ci côté boobu noonu également hmm. ñan ñooy nekk ñan ñoo gën a nekk sa client ndax métis yi tubaab yi wala ñan. wala wala nit ñu sénégalais est-ce que ñu ngi ñëw di di di jënd lii bu baax a baax. non tubaab actuellement sénégalais yi ñoo gën a bëgg tubaab lu rafet. Sénégalais yi ñoom ñoo gën a bëgg tubaab lu rafet li ñuy liggéey parce que Sénégalais yi ñoo koy jënd ko donc la preuve en est que boo bu da nga dem benn kër Sénégalais yi dem lu rafet rek nga fay gis donc ñun amuñu affaire de temps en temps ñu ni jaar rek te mun ñu jën pièces yu mag yi pièces yu ndaw yi ñuy jënd pour yóbbu ko parce que dafa diis demal ci aspect décoration euh, waaw ci la ci la ñëw yéen sànq yaa ngi koy wax ne euh, boo defaree yow gaynde dépassé nga ko koo defar lion parce que yooyu moom xanaa c'est élémentaire mm. mais yow tey euh, boo def boo yattee li nga yett ba pare sànq matal mi ngi ko doon wax parce que tam nit ki tey mën naa ñëw bëgg tey benn affaire boo xamante ni en pierre mais yow mi nga xamante ni yow lay ñëw seet si war nga koo mën a defaral loo xamante ni boo ñëwee di nga ko wax ne ko fii nga koy tegal ci kër gi ku ñëw ne la décoration salle laa soxla nga ne ko lii la nga def sa gamme nga def sa bu nekk nga def ko spécifique mu spécifique fu mu war a dem ak beneen aspect mooy chute d'eau yi nga dugg ci modèle yi ngay def ak nan nga koy defee. ñu tax a toog te xam. non loolu je ne refuse mais pour dugg ni mu koy liggéeyee kooku technique de travail la boo xam ne du ma ko mm-hmm. mais lépp lu ma liggéey man lépp lu ma liggéey client bu ñëw mun naa la fu ma koy teg lép lu ma liggéey parce que bi may liggéey dama liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ma ne donc. comme yan modèle. donc modèle yi bëri modèle yi nga xam ne mooy dem fu nekk par exemple xam nga. kenn ku nekk ax salon wala décor këram lu muy laaj am na ñoo xam ne tey bu ñu jëloon gaynde mën nañ ko teg par exemple seen seen jardin waaye am na ñoo xam ne mën nañu jël lion bu ndaw tekk seen taabal bureau. bu amul jardin la. non bu amul jardin moom laa lay wax am na ñoo xam ne. solution xam ne seen kër la lu ndaw teg fenn donc pour peut-être si ay bibliothèque yu demee noonu. Mhm. mais li ma bëgg expliquer daal mooy toll na ni. jamono boo xam ne fu mu toll nii il faut nga def innovation pour mën a am xaalis donc je vois que ne. moo tax nga dugg ci euh, cascade. beeg chute yi léegi non. Issa yow tamit Issa nooy bañ. nooy bañ dañuy wax euh, waxuñu la nga wax exactement nañ nga koy defee mais ci décoration cascade bi nu muy demee fan yan endroit lañ koy def ak chute d'eau yi nu muy demee. bon cascade yi généralement gars léegi bu ñuy tabax di ngi bàyyi benn patio. soit euh, euh, mu nekk sala en mu nekk ñaari chambre yu nekk en face mu am benn patio si milieu bi mhm. léegi foofa voilà généralement dina ñëw ñu ne ma décorer ma fii chute d'eau wala benn cascade donc foofu moom laa loolu quoi. <laughs> ñu nangul la ko am ma Matel sànq tam wax na yéen basalte rek ngeen di liggéey amul beneen xeer boo xamante ni mën ngeen ko ngeen ko mën ngeen koo décorer. basalte bi rek la. basalte bi donc même marbre bi donc même pierre gabon bu vert bi gars yi andi parfois pour ay réfectionnement liggéey parce que structure base la rek dafa la. cinquième da nga ko jàng donc bon man jànguma ko parce que don la si seen famille mais je dis que ne man rek. corniche ba corniche daj may seul sculpteur boo xam ne damay def pavé revêtement mural jet d'eau cascade rocaille donc pour pour pour vous dire que ne niveau boobu yetti xeer dama ko dépassé man mais yetti xeer mooy suñu base mooy suñu base parce que Sénégal tollootuñu foo yetti yetti non non dama ko dépassé du mu ko nongo xam li tax tey jii di toll niveau boo xam ne Sénégal boo fi yettoon benn gaynde tekk fi nii gars yi ñu waaye la kii est-ce que du xëram sax <laughs> am nga donc am na loo xam ne du ñëpp ñooy jënd xeex mhm. dañ koy wax léegi je me dis que ne pourquoi pas ñu taj affaire bi gérer xool ni ngay doxee si kër gars yi pour mën a def ay innovation di def lu rafet gars yi di d'accord mhm. donc loolu la oui oui je, je intervenir avec euh, permission euh, am na lu ma wax sànq lu am solo ci origine euh, roche yi mhm. parce que roche marmatulier projet yi nga xam ne fusion moo ko génne donc bu génnee dañuy nekk am benn dureté. muy magmatique yu jóge euh, ci kii bi ci ci euh, euh, volcan. donc c' est difficile à traiter donc les roches qui sont roulées par la mer son ma plus mm. ma yooyu lañ a mën a mm. mais li ma doon wax surtout mooy ñaari yëpp benn mooy yéen fi ngeen toll fi mu nekk nii. il faut ñu renverser tendance bi mm. ñun par exemple dans nos bâtiments dañuy jël jëli marbre de Italie. jëli wuti maar booba feneen yéen ñi nga xam ne fii ngeen juddoo fii ngeen amee seen lépp ngeen ànd ak ay Sénégal mun ñu defar ay traitement de pavé yoo xam ne doo ko jéggaani ji on est preneur normal architecte yi dañ leen di war a jege mais attention désormais bu ngeen di defati jardin bu ngeen di def accès ci yenn kii defe leen ci pavé yoo xam ne fii la jóge fii la jóge fekk Sénégal lañ ko defaree ça c'est un aspect de la question beneen aspect bi mooy yéen na ngeen jege aussi parce que nguur gi am na benn benn kii bu ñu tuddee ministère de la formation professionnelle ñi nga xam ne mun nañu mànkoo ak yéen seet le problème bi ñu am Sénégal mooy xale yi nax la ñuy fexe ba ñu am liggéey donc suñu leen encadré yéen yéen ay xale def ci avec les deux mamelles aujourd'hui du gouvernement c'est-à-dire le FONGIP le FONSIS et même la la banque qui waaye être créée pour appuyer les PME donc mun nañu la encadrer de telle manière que yow non seulement di nga ci gis sa bopp mais xale yi dinañ fexe ñoom tamit ba gis ci seen bopp d'autant plus que am na benn marché buy ñëw parce que le, le le Sénégal va abriter de grands événements notamment la conférence. Euh, mhm. en 2014 en 2014. Oui. donc am na foo xam ne su ngeen produire am na tout de suite fu mu jëm. donc dañ koy waajal farlu ci defar ko ba nga xam ne yow nguur gi. dañ ci ànd ba ku nekk gis ci boppam. man je souhaiterais que nga développer aspect partenariat boobu. bon <laughs> man bon personnellement man daal li mu mën a wax mooy li tax ma ñëw fii du leen quoi peut-être sama gars yi ñoo ma gën a poussé ma ñëw fii mhm. mais bu ma préparé woon ma ñëw fii nii naa mën a wane yoo xam ne. gars yi dinañ xam ne kii am na vraiment xam na lu muy wax quoi. du ñàkk beneen yoon di nga ci gën a. incha allah rabbi ñëw. parce que voilà ne ko Mamika ñun ñoo bañ. indi woo ko léegi expliqué ko ñoo bañ. ñoo bañ. waaw ñoo bañ ko ko may waaw xama xama ay ko. expliquer ko li tax mooy rubrique décoration bi ki koy def mhm. gaan ñu ngi koy nuyu de passage mhm. dina ñibbisi incha allah léegi ak jàmm li gën a tax ñuy dugg décoration moo di permettre ki nga xamante ne mu ngi toog këram bëgg a décorer te mhm. amul euh, moyen yu mu jëlee décorateur wala xamul kan la war a xool pour euh, dem jëli ji comme décorateur ñu jox ko ay astuce won ko ay affaires yoo xamante ne mën na décorer boppam beneen aspect mu nekk modèle yi ngay def yow ci lan nga